sama yéene neen la Youssou Ndour comme Amérique Youssou Ndour artiste how class. Straighten it out. Find out what she's talking about. Come on, man. Don't do that. dégg nga wolof ah. waaw. naa def man la. waaw instant yii gars yi dëkkandoo dañuy complain musique bi quoi. Hmm. loolu moo tax ah? dëkkandoo yi ñooy complain musique bi. waaw bàyyi nañ ko ah waaw fay nañ ko fii bi comme Sénégal nga xam ne. amul yooyu waaw amul yooyu quoi xam nga dafa bës boo xam ne dafa mën nga kii mais heure bi. dootuñ ko def.

no, no. Ah! tiitoon naa euh, alhamdulilah rabil alamin man daal fi mu nekk nekkati ñii dañ ma doon nax tiitaloon nañ ma nag tiitaloon mais yii pièce dañ koy wax ah mais pièce misaan beneen yoon dama koy wax ndax lii sama kër jaag man dèjà dama am feebar mënoon naa cee dee ii man defuma dara luñ may jàppee. dañel a ngi nii dañel dañel euh, dañel affaire bi lu tax lu tax ngeen pièce ma police ñëw lu tax. Euh, fi ne. kii wayu la a xam man ba xale bii tiital ma naroon naa euh, naroon naa def ci seen loxo ah jeune bandi la kii nii deñal bandi la lan moo tax léegi deñal doon ma piège indi ma ci këram gii doon ma piège police ñëw fi su ma deyoon ci sa loxo deñal looy wax lu tax nga ma Why oh, I tricked you? Oh, because you always do it to people in Senegal, so you're officially pranked here. Yeah. mu ne lan nee na parce que da nga koy def ci Sénégal quoi soo lu rëy la ci moom quoi fii ci États-Unis boo ñëwee mu def la ko quoi. moom piège ma ma tiit moo ko neex defuma piège def jox ma ay dollars di ma piège may tiit. she say she she say why you didn't give her money you didn't do anything you just. <laughs> it was for yow bandi nga ah. fan la quoi donc pour reetaan loola quoi. mais c'est bon comme pour reetaan loola lii day tiital sama wax dëkk mais damay profito euh, muy xale bu baax a baax dañeel ak ñoom tonton Jean ba ñëwee fii ba tey euh, ñun ñuy toppatoo di ñu di defanteek ñun yu baax ay teraanga yu toog léegi duñ def euh, tiit naa torop na xam naa émission bi bu dee du fi yemit damay dem sama kër nelaw changé beneen yére dem tourné leen leneen feneen ak sama nii non mënut a continuer. dal leen jàmm kontaan na. waaye fekk mi tonton si bés bu weesoo jafka bi si bés sama xaritu biologiste bi daf ma xamal ne li ëpp si jus de fruits yi dugg si réew mi ay produit artificiels nañ ko defaree te réew ñu jóge kenn du ko fa. Mennum Best moo am 35 pour cent de fruits naturels li si des di ndox ak ay vitamines Best am na ñeent fukki at te mooy jus de fruits bi nekk si Canada ak si brique te mën naa toog ñaari at te du yàqu. chéri xaw nga ma rek ay jus yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee. damay dem si poche rek xam naa ne best du seen morom. ne la seen wér gënal seen poche. waaye ak best Sénégal neex la ba noppi. best rek moo neex. te moo <laughs> brio couscous parfumé bi moo neex brio man sax damay leer brio moo neex brio moo baax ci biir moo baax ci yaram lay lay la laa ñëppay bëgge ñëppay bëgge couscous ngeen ko mi ngi nii moo tojoon Sénégal ñëw tojaat New York ban clip nga bëgg ñu may la ko ci sa clip yi. Euh, jeunesse plus belle. xam naa dina leen nelawloo nag mais ay clip yu neex la ndax du heure boobu ñu leen koy jox mais ndekki leen rek fu naa naa ko wala ngeen zukloof ko mu baax koo ciy nuyu euh, maa ngi nuyu sama yaay maa ngi nuyu samay frère samay sœur maa ngi ñëw Rose Ñaanjo nga xam ne mu may ba léegi donc li des euh, yàggul maa ngi ñëw léegi ñëw ñëw jël si leen ñëw jël si ko surtout sama yaay donc euh, maa ngi koy ñaan maa ngi ñaan sama yaay te mu dëgër ndax maa ngi sama sama papa mu ngi gaañu na y'a presque trois semaines donc mu metti trop si man pour ne la nañ ma ñaanal maa ngi continuer di liggéey si movie bi buy waaj a gën donc euh, anyway ñaan rek laa ñaan quoi Sénégal bi yëpp. muy nit ku baax koo xamante ne bañ ko fi fekkee ñu am doole lañ ko fekk muy liggéeyal ci dëkk bi ci New York di leen wax nag du ku ndaw parce ñun fi ñu ko fekk sénégalais amul fitu di fa taxawaalu bay liggéey ñoom soxlawul expliquer nag parce que loolu digganteem la ak société ba muy liggéey ak ña muy toogal mais di leen wax ne leen mi ngi fii di dóor waar am jom am lu muy jombale boppam di la wax ne la nga wax ñii ñu nuyoo mayee ci sa clip boobu nga mayee. <laughs> kii bandi la Everyone should check out the movie when it comes out. I'm pretty sure you'll be entertained. baay may sa baay Cheikh mooy sa baay maam jaara yow sama xarit bi sama xarit bi dañal dinaa ñëwaat yow koy yow euh, nañu def sa waa man la bàcc ah, yow la bàcc kay ñu ngi lay seet <laughs> waaw waa senegal ñëpp laay nuyu quoi euh, sama yaay ñoom ñoo ngi ci Europe euh, sama papa sama sister Fatou Gumbalo ñëpp tout le monde anyway ñu ñooy kii africain yi nekk fii quoi ñuy def benn movie boo xam te ne day waaj a génn ci fan yi bi wooy income tax incha allah so movie boo xam te ne presse ouest africaine loo xam te ne kenn ko fi def so ñuy liggéey ak Janou Janou ku baax la so mu créé am idée boobu jël ñu ñu ñëpp ñu boole nekk famille ji def benn movie quoi so movie nag dana génn te movie bu neex la quoi sama dina génn dana génn su mais yow dégg naa ñu ne euh, di nga dem Sénégal temps yi mais da nga fi bëgg def benn 60 ans bu doo ah non non fan yii rek <laughs> movie bu génnee moom incha allah naa dem Sénégal quoi. fekk nga nekk star siiw ci dëkk bi. waaw ci movie na. <laughs> mbagu ndeyu Awa Mbuub waaw mbagu ndeyu Mustapha maam Jaara téléere waaw waaw dëgg la nu mu tudd. asalaamaaleykum euh, euh, maa ngi tudd Baara. Baara ñaata nga ñu xam ko ci EBM kàddu def naa presque cinq ans. cinq ans moo tax déggatoo ni olof euh, allah bi maa ngi tudd Baara. maa dégg na dégg ñëpp wolof mais nag. Baara sëñ Baara yow waroo changé sa tur bi sa tur ba changé ban tur nga yor. EBM cash. EBM cash xam nga li nga jëndee EBM cash sëñ Baara dafa diis de Baara. boobu xam nga bëgguma nit ñi di wax ay kii di di ci déconné yooyu tax yaa mën na bu ko yee dugal turu bande bi euh, mais damay nuyu ñëpp mais damay njëkkee Jeannot Gaye sama grand affaire yooyu den après ma nuyu gars yi des comme Bacce Xaarim Deñeew Deñeew Marceline. di nuyu pièce bi ngeen ma pièce dégg naa yow yaay bopp bi lu tax ngeen pièce ma tiital ma nii. parce que dañ la gis nga di ko def Sénégal. Mm. di mbala gaay rek di leen dóor ci kii yi. kon eh, États-Unis yéen ngi bëggee émission Rich Mon ñu ngi koy bëggee baax moom hmm. ñu ngi kontaan ma. xool yaa ngi koy bëggee foo ma def. kon tardé woo kon yaa ngi ci diaspora bi yaa ngi ci diaspora bi ba tax ñuy profité di bàyyi clip euh, jano boobu dox dem. Salama ja Sanar maam jaara yi Aja Jorga nay sa mooy sa baay. yéen a réer waaw ne leen nag nii rek lay demee euh, bañ euh, li euh, surprise la yëguma woon ni dañ ma indil policier xam naa buñ ma ko waxoon nag du ma tiitee noonu mais Youssou woo naa la ba sonn nekkate Youssou ah da ngay mër <laughs> léegi Ndaka Ndour laay yuuxu dootu ma la woo <laughs> let's go ci yeneen clip yu baax clip bu jeune boobu may profité di ko may seeni Chocovani mais di jiital man sama Chocovani ci biir xam naa mi ngi koy seetaan di di la wax rek tegal sa loxo ci air bi mu mel ne man mën ko teg ci sama mbagg waaw côté man la xaadim aan doomu bàyyaan ak ay rësin <laughs> man bokk naa sa income tax um, film bi waaj a génn temps yi um, su génnee daal dina neex lool. man rôle nga ciy joué. man maay doomu Jano si film bi léegi man maay ki nga xam ne dama si réew may yore jikko américain band bi. xam nga suñ ma joxul lu ma bëgg foog ma dem uti ko quoi instant bi maa ngi nuyu waa Sénégal sama famille yëpp maa ngi nuyu waa Tëngéej waa HLM kat ñoom sa maam Ndeye Aïda jàll non léegi sama sama yaay tamit ak waa Sacré Cœur 3 ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax xam ne fàttewuma leen su affaire yi baaxee rek léppay baax incha allah. man depuis 94 1994 maa ngi Amérique fii laa màggee presque. Euh, gis ngeen nag nii rek lay demee saa su nekk euh, muy spécial émission Rich-mon Djizz euh, police bi ma jàppoon léegi police dëggantaan la en même temps day jouer fii film muy film boobu nga xam ne concept bi Jeannot moo ko joxe muy film bu nar a bu nara a toj biir New York waxu waxuma laak nag monde bi fi mu nekk nii police bi dëggantaan damay wax ak moom laaj ko lu tax mu jàpp ma police dëgg. oh what are you still doing here arrested you ah, mais damaa génnaat danga ma doon nax tëjoo ma dëgg yeah you didn't get out now you ain't that good forget about that forget about that <laughs> lu tax mu def ma noonu lu tax di ma jàpp no no I'm Detective Matthews played Detective Matthews in the movie Income Tax had a very good time over here yes euh, film bi ngay joué premier euh, premier euh, rôle bi yow lan nga ci film My name is Detective Matthews in the film. Yes, I had a good time. Uh, as you know, had a lot of time, a lot of fun with everybody here, especially Botch. I had a lot of laughs with Botch. Botch never got laid throughout the whole picture, but he was funny. I liked him. He was good. <laughs> Eh, deuxième bi deuxième bi eh, tout rôle yow lan nga ci. <laughs> Yeah, well, we had fun, but you know, the big thing is like to say hello to everybody in Senegal. How's everything? And come look for us to see us at Income Tax. We'll see you there. Eh, yow tu connais Youssou Ndour? No, no, no. You're going to jail. Let's get the. Hey, hey, attends, attends, baal <laughs> ma. What's that? Oh, yeah, I sing. Yeah, I sing all the time. kuy fëggaat. kuy fëggaat. kan nga bëgg a xawaar yow fii kan nga bëgg a nuyu. I want to shout out to everybody in Senegal over there. Say hello to everybody. Hope you all feel well. Hope everything is fine out there. And come see the movie. Come see me at least, you know. If anything, come see me. Forget Botch, because Botch is no good. He don't have no fun. moytul leen nag kii tëj na fii ba tax na fi mu nekk gis ngeen ko li ngeen koy gis euh, doomu dëkk bi la ba pare nekk policier bu mag ci biir dëkk bi policier dëggantaan en même temps di acteur film mais nit ku oyof ku baax koo xamante ne euh, tooñ na ñu mais ba mu pare jàppale nañu ci suñu liggéey kon du ma def lu dul may ko Kumba Gawlo kuy fëgg yegsil kange yaay fëgg eh eh sorry sorry sorry sorry <laughs> sëñ bi na nga def ah oui ci tombé ñii sànq xaw nañ maa rey dañ ma doon waaj yóbbu police dëgg la dëgg yow la kan waaw man la Ousmane man euh, président ci Jollywood ah ok yow Ousmane dafa mel ni da nga yàgg ci dëkk bi de. bon pas tellement def naa ay sept ans yooyu. ah sept ans. yeah mais yàlla baax na d'ici trente ans bëgg nga ñibbi. that's right ma ma anyway euh, chaque année moom. yàlla dogal na maa ngi dem quoi. ah yow kay yaa ko toj kon mais kan nga bëgg nuyu ci ci Coumba Gawlo Seck boobu say mbokk Sénégal fàtte woo leen. Euh, non never <laughs> parce que ñun suñu mbokk ñoo ñu fi bàyyi. <laughs> yeah kan kan ngay nuyu ci sa mbokk bon première chose maa ngi nuyu ma chérie kooku Ndeye Fabo yi. foo ko def. ay waay wuy sa jëkkër ak kan ngay nuyuwaat. maa ngi nuyu sama yaay sama famille tout le monde xam nga ak ñii nga xam ne dañu doon jàppale sama copain yi nekk France Italie xam nga maa ngi nuyu ñëpp quoi. vraiment ma kenn kenn. mais soxna si nu mu tudd. Ndeye Faboy. Ndeye Faboy xam naa ne moom comme maa fi nekk te ne ko fi bàyyi ma rek ma teg caméra bi jël sa jëkkër ndax dafa coofee.